4 avril événement bi amee Iba Thiam 29 ans nekk directrice administrative et financière à Act Afrique Africa Consulting and Trading ñàkk bakkanam au cours d'une soirée privée bi nga xamante ni nii ay doomu borom barke ñoo ko sekkoon. ci soirée boobu ñu amaloon nag aux Almadies dafa tombé ak contexte pandémie mondiale ndax jàngoro yi Covid 19 bi laale àdduna wërgal këpp ba fii ci Sénégal. kuwul fa nag am. li ko dalee vingt heures ba six heures du matin donc naka la jeunes yi def ba dem ci soirée boobu taxaw seetlu bi nag conseillul directement jëmm ji di Iba Thiam ak na mu bokkaloon soirée privée bi waaye pluto ay remark yu ñu def ci kaa boobu Sénégal ndax dafa am ay loi pour ñu am daraja ci dëkk bi ñu leen di woowee doomu borom barke ak ñi nga xamante ne nii ñoo leen di woowee doomu baadoola maanaam ñi nga xamante ne nii seeni jur seen loxo jotul seen ginnaaw en tout cas remarque bi ñu def rek mooy ñi nga xamante nii la ñu tuddee doomu borom barke am nañu ay privilège ci kaw ñi nga xamante ne nii seeni jur seen loxo jotul seeni ginnaaw ci xibaar yi enquête yi fësal ci booru 22h maanaam 10h ci guddi la kii di Iba Thiam agsi ci appartement boobu ñu tëggee woon seen soirée privée bi fële ca Almadi ci ab immeuble bu ñu dippee Garden Park ki ko moom nag di Rokhaya Diaw wala boo ko Rougui Diaw nekk doom ci Baba Diaw bu itok ab takk der ñu jàpp ne dafa wàcc yoonam moo ko indi moom Iba Thiam ci destination wam moyennant la somme de 20 000 francs destination fatale nag pour Iba ndax au cours de la soirée di la def ab arrêt cardiaque ndax overdose de drogue bi mu def. cocaïne nag nekk ab xeetu sinébar bu ñu classé ci drogue dure yi jeunes yooyu nag moom lañ doon jëfandikoo ci soirée boobu. bu ñuy wax ci drogue dure ñu fàttali ne ci li ko gën a yées ay ndaw yu kenn xamul ndax ay doomi baadoola lañu wala. yàgg nañu ndungu siin ndax li ñu ko jënd wala bokk li ñu ko jëfandikoo ñi koy trafiqué nag ñoom ñi ngi circuler librement ci dëkk bi. benn preuve buñ ci am mooy ci ay jamono yu weesu ab saisie de drogue bu am solo lañu def fële ci port autonome bu Ndakaaru benn waay nag bu ñu dippee Ibrahima caam ñu gën koo miin ci turu Tubay. ñu teg ko loxo mu nekk prison ba léegi tandis que ñamu bokkaloon dil bi nekk ay tubaab te seeni responsabilité gënoon na mag ñu libéré leen depuis. injustice judiciaire ndax déjà trafic international de drogue dañu ko criminaliser fii ci Sénégal avec la loi Latif Gueye depuis 2007 ñu adopté ko ci le code des drogues Sénégal nag. dañoo yaakaar ni loi yi ñuy tëgg pour pauvres yi la et pas ki nga xamante ne waajuram nekk na borom jax ci dëkk bi mën na fàggu lu mel ni sinébar jëfandikoo ko te dara ko ci fekk tandis que kii waajuram loxoom jotul ginnaawam ñu koy woowee doomu baadoola wut sinébar wala sax mu jëfandikoo ko mooy signé na arrêt de mooram leneen lu ñu gis ci kaw Iba Thiam mooy dañoo am le Sénégal des uns et des autres li warul kàddu yi leen nag mooy mesure de riposte contre jàngoro yi Covid-19 bi entrée en vigueur depuis tey tere dox ci mbeddum Ndakaaru yi dafa mel ni concerné wul ñenn ñi ndax boo amee lu toll ci 20 000 francs wala sax 30 000 francs mën nga génn dem doxi say soxla xale yooyu nag dañoo def lu ñu tuddee violation de la loi du couvre-feu moo di ci ay jamono takk der yi jàpp nañu ay nit di leen làpp parce que dañoo guddee ci àll bi te 20 fekk leen ci mbedd mi ñu làpp leen dóor leen ba ñu sonn xale yi nag nekk lu ñuy woowee fis à papa wala sax ay fille à maman depuis seen jëf bile gis nañu ne ab ribambelle d'ombrage ak ay lobi taxaw nañu ngir xool naka la ñuy def pour setal deru yenn ci xale yi de. scandale bi nag créé li nga xamante ne moom mooy frustration ci réseaux sociaux yi pour boole li ñu tuddee l'impunité des fils de riches. ci ab xibaar bu ñu titré demain la révolte sociale des baadola wax nañu ne ñenn ci askanuk Sénégal giñ nañu ne kaa bi su amoon ci bërëb yu ñu naan yëmbal Pikine Kër Massar wala sax Grand Yoff ñëpp ñu laale ci mbir mi amaana ci kaso bi sax lañuy dee réewum Sénégal bi nag naam kopp yee tolloowul waaye ku xëy rek di nga guux lu ñuy xaar nag ci yoon mooy mu jële fi lu ñuy dippee injustice judiciaire te def liggéey bi ko war pour une équitable ñi laale ci mbir mi nag ginnaaw ba ñu leen dégloo ku ci nekk lii la wax ku mel ni daamu amaar nag moom mi nga xam ne dañ koo cité ci histoire bile moom wax na ni ci boor 6 heures du matin lañu ko prévenir ci cas moom nag li mu tontu rek ay xaritam mooy ñu gere situation bi ndax moom concerné wu ko ndax ba mbir mi di am fekk ko fa. keneen ku ñu cité ci histoire bi turam di Louti Ba moom nag li mu dénk enquêteurs yi rek mooy au moment des faits. maanaam dafa ko ak sagoom ndax sinébar bi mu jëfandikoo laata loolu nag wax na ni jot na def ab massage cardiaque ki nga xamante ne moom mooy Iba pour xettali ko ginnaaw ba mu commencé di wàccu deret ñu gis ne moom ñaari version yu bokkul la def keneen ku takk der yi tamit déglu ñu koy woowee ci turu Poupette moom li mu wax rekk mooy ginnaaw ba mbir mi amee moom nag dafa doon nelaw waaye nag keneen ku ñuy tubbee Jaaja Taal weddi na wax yooyu ndax ci ay kàddoom ba fay di am ñoom ñëpp ñu ngi doon xoole mu mel nag ku ci nekk am na sa part de vérité bi nga xamante ne nii moom nga wax ñu gis ne rek seeni témoignage wala bokk seeni kàddu wuute na lool

àllarba juróomi fan ak ñett ci weeru avril lañu leen defeere au parquet ci booru midi 11 minutes. mbokk yi ñuy déglu ci sans limite com lii ab tënk bu néew la rekk ci kaw Iba Thiam ak xalaat yu ñu am ci wàllu woowee di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.